question ak Moussa Sène invité di Mamadou Coulibaly ñu bàyyi la ak sa invité Moussa. Mm-hmm. Euh, suñu gan bi tey mooy Mamadou Coulibaly Mamadou Coulibaly moo nekk coordonnateur du collectif des instituteurs diplômés des universités du Sénégal je pense bien que noonu la Mamadou Coulibaly ok donc euh, pour euh, ñu nekk dugg suubu ci waxtaan bi lu ñu bëggoon xam rek yéen euh, créer ngeen ab collectif alors luñ lan moo wundu collectif boobu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. sëñ Omar. Régiram la Fatou. aussi maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn. ah collectif bi juddu parce que dafa am lu ñu constaté si enseignement élémentaire muy commencé am daal eh, enseignement élémentaire dafa commencé bëri ay diplômé ay ñu am licence ay master am sax ay doctorat si biir ñu seetlu aussi autorités yi. avec la complicité de certains syndicats ñoom au lieu ñu xalaat ñuy promouvoir la carrière des enseignants déedéet dañuy jéem a maintenir c'est tous ces enseignants là yu am diplôme à l'élémentaire bon am ñu ñu jooy ko fu ne woo syndicat yi ku ñu ku ñu woo rek xam nga dooñu wax lu leer daal mhm. ñu ne ah léegi nag comme ñoom bëgguñoo jël seen responsabilité pour xeex loolu léegi nag ñu dañuy créer collectif. Mhm. pour taxaw parce que suñu carrière moo nekk en jeu waaw nit ko am licence wala master wala DEA nga bëgg bëgg ko bàyyi élémentaire amul benn perspective de carrière. Mhm. loolu moom wax dëgg yàlla nekkul logique. ok lii moo tax collectif bi judd. yéen ñi nekk ci collectif bi ñaata ngeen ci lim ak aussi ku kenn ku nekk ñaata année la def ci domaine élémentaire bi. waaw collectif bi. Euh, heure bi may wax ñu ngi si mille à peu près mille deux cent enseignants sur sur l' ensemble du territoire national te am na ñoo xam ne xëy na yëguwuñ ko moo tax beneen bi mooy mbiru euh, wàllum carrière maanaam euh, ancienneté bokkul kii dee def cinq ans kii dix ans kii quinze ans man mii di wax def naa vingt quatre ans de service te maa ngi élémentaire ba léegi te li si gën a doy waar mm-hmm. mu amoo benn perspective promotion interne ci biir enseignement loolu mooy si gën a doy waar. benn affaire rek moo ci amoon muy charge de cours te après bu ñu gën a yaatal dinaa si ñëw incha allah. ok si problème mu carrière boobu sax la ñu gën a la ñuy gën a accentuer suñu waxtaan bi tey ndax dañoo gis ni yéen euh, ay lijaa lijaasa ngeen maanaam am na ñu am bac am na ñu am licence et ainsi de suite ainsi de suite. ñu gis ni aussi ngeen ne xaw ngeen duré ci enseignement bi ci élémentaire bi mm. mais boobu ba léegi avancement mooy seen problème te li ngeen yaakaaroon jóge ci euh, maanaam instructeur dem ci soit chargé de cours maanaam mm. au moins professeur genre quelque chose comme ça mais il s'est trouvé que bunt yi dañ ko bloqué alors qu'en est-il réellement ci loolu nga xamante ni moom ngeen amoon comme espoir justement pour rehausser votre niveau waaw xam nga enseignement élémentaire ñoo xam ne bu ñuy dugg niveau BFEM nañu duggee mais xëy na kii boobu bëreetul léegi ñu ngi niveau bac mooy crème bi avec le relèvement du niveau le niveau bac léegi niveau bac bi si biir anciens yi comme man xëy na ba muy dugg bac laa duggee mais dem naa jàngiwaat université pour yokk sama lijaasa mais dans l'espoir pour mu am promotion dem au niveau dans le moyen secondaire am na si aussi ñoo xam ne ba ñu def concours bi amunañ seen master mais dañ ko teg ne comme bac nañu laaj ñu def bac dugg loolu sa jamono ji moo si ëpp imagine un concours de près de cent mille candidats ñu war a jël trois mille xam nga c'est très sélectif boo xoolee ay borom licence borom master rek ñooy jàll léegi ñoom bu ñu ñëwee après le CAP mooy certificat d'aptitude pédagogique léegi da ngay toog rek looy mën a def demande de charge de cours soumettre ko directeur kooku bon su paree ñu yóbbu ko inspection de l'éducation et de la formation bu waree ñooñu acheminé ko au niveau des inspections d' académie léegi bu njëkk ba inspection d' bi wala IF sax mooy IF ñoom amuloñ ko bon prérogative jël charge de cours dañ charge de cours du woon dara du ñun sax taxuñu ko woon a jukk borom bac moo ko taxoon a jukk parce que bu njëkk ba les instituteurs yi njëkk amuñu woon yenn diplôme yi léegi te professeurs yi comme dañoo manqué woon da ngay jël ku am bac ak CAP rek woo ko ne ko kaay jàngal ma français wala mathématique wala beneen discipline ñu dem ba si biir avec Khalidou Diallo je pense mu ne bu ñu toppee bac bi day en risque d'avoir un déficit au niveau de l'élémentaire ni ñu ko yóbbu au niveau de la licence pour les matières littéraires mais pour les matières scientifiques dans certaines zones bac bi mun na jàngale matière scientifique comme bac SD waaw léegi nag bon ñu déposer ay pour nekk ay charge de cours mais problème bi mooy. Hmm. dafa bëri ay tracasseries di dépôt ba bu recrutement ba waaw li si lekk bu bëri xaju si benn émission pour mokk. waaw way tracasserie. fan la ñu ko commencé mooy directeur bi da ngay ñëw bind sa demande de demande de charge de coût. Hmm. mu bind la bon xam nga du mën a bind avis non défavorable mais da lay bindal. Uh-huh. avis favorable sous réserve de de de ton remplacement mais ñun nekkuñu fii. di xaar ñu remplacer pour ñu dem. loolu ça relève de l' de la de la compétence de l' état. parce que tey boo deewoon lal lay remplacer donc. donc loolu état la war la war. waaw warul warul bind ay accord sous réserve ne la bindal accord ñaanal la nga dem bu dee sa wërsëg de toute façon école bi nga jógee mouvement bu amee dina am ku ñëw remplacer la bu jógee foofu nga dem inspection de l' de la formation gis nga sooy si déposé bi rek. ki ngay teg foofu bureau des ressources humaines moo la ñu ko découragé loolu. Mm. waaw li mu lay wax. boo deful nànk sa dossier doo ko fa bàyyi. boo ñëwee ne ko damaa bëgg damaa indi benn dossier de demande de charge de cours mu la ah charge de cours de moom wax la lu wax joo xam ne daal yow presque da ngay découragé. dina ko jël. Mm. malgré parce que mënu koo bañ a jël. am na certains chefs yoo xam ne dañ koy jël. dañ koy. au lieu remonter ko au niveau de l'IA mmh. Mmh. dañ koy jël daal di koy classer foofu parce que li tax dañ ñoom boo waxee ne dañu bëgg dañu bëgg seen élément dem dañu nekk si logique gu déficit nangam nangam ñi dañuy manqué mais loolu yaa a une solution te muñ après bu ñu demee ba si biir naa la solution yi y une solution pour ça léegi mu ngi am ba léegi wala jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi dafa joxe directive pour ñu dakkandal loolu waaw léegi nag mmh. wax dëgg yàlla autorités yu bees yi monsieur Moustapha Guirassy il est en train d'abattre un travail extraordinaire mu koy exhorté mu continuer dans cette même lancée wax dëgg yàlla gëw ma ne yëg na ko mooy bu ko yëgee xëy na dina si apporter ay solution parce que moom wax dëgg yàlla xam na éducation ba pare xam na état ni muy doxee mais yow naka nga mën a ay maîtrisard ay licencié ay doctorat élémentaire nga ne bu ñu jugee foofu dañuy manqué est-ce que loolu nekk na lu logique nit ki am carrière am def 15 ans 20 ans 25 ans de service ba pare li si gën a doy waar il a suffi d'une note circulaire sous le magistère de Moussa euh, Cheikh Omar Anne mooy ministre de l'éducation sous Macky Sall il a suffi d'une note circulaire pour ñu rendre compte ni instituteur amul benn plan de carrière bu bien défini amul plan de carrière ba xasee am CAPM day toog lenn la mën mooy dem direct dem nekk directeur wala surveillant te ñëpp mu ñu nekk de directeur d'école mu muy dem surveillance am ñoo xam ne ñoo bëgg def carrière dans l'enseignement jaar fu ñoom professeur Iba Der Thiam jaar jaar fu ñoom Ibrahima Thioub jaar ak ñeneen ak ñeneen yeneen kàngam yaa naa am pagaille mais les sommets moo bëri ay obstacles ba du ko permettre cette nouvelle génération. ok léegi yéen euh, foog naa yéen maanaam. ngeen rehausser seen niveau ngeen bëgg te am na yeneen concours yoo xamante ni c'est ouvert pour euh, maanaam jàngalekat yi. mais yéen lan moo tax ngeen taamu rek chargé de cours yi est-ce que amul woon fi ay ENA et tout ça pour ngeen dem. au moins jéem a dugg ci yooyu wala daf wala seen kii bi moo leen ko permettre. très bien c'est ça le paradoxe. yow xam nga ENAM ça ça sort du cadre de l'enseignement la l'instituteur mën na def ENAM. mën mhm. na def centre de formation judiciaire. MTS yëpp am na voie professionnelle. mais ce qui est bizarre Pastef noo def concours professionnel pour dem nekk professeur si ça kii est bizarre c'est-à-dire que promotion interne bi war am entre l'élémentaire et le secondaire yow li ñu naan bay bay u tànk balaa ngi xaar ay am ay des concours yoo xam ne ça sort de l'enseignement mais yow protéger ses agent ñu bañ a def concours yooyu ñu bëgg a def enseignement nga bàyyi leen ñu am promotion interne loolu mooy paradoxe bi ñu bëgg nag. comme diplômé yi bëri na ministère bi daal def benn concours ubbi concours professionnel niveau licence maîtrise FASTEF pour que yow instituteur bi. Mhm. boo amee sa licence wala sa maîtrise nga mun a def concours bi. parce que ay ENAM yi ngay gis nii ay duñu jël ay trois ñu jël ay quatre sur des milliers de candidats ba pare beneen bi mooy yow mun nga dem nit ki fonctionnaire bi lu muy wër mooy hiérarchie A. Mhm. si IRSA am na biir enseignement boo demee ENAM it IRSA nga fay fekk mais am na biir enseignement te mu moo la gën a yomb muy maanaam nga jóge élémentaire dem moyen secondaire nekk professeur de lycée nekk IRSA A1 mook gouverneur bi ak euh, les autorités yi ngay gis nii ñoo yem c'est la c'est la même hiérarchie A1 la rek ENAM ngay dégg nii A niveau A bi A1 la professeur d'enseignement secondaire A1 la donc comme yow A1 ngay wër te bi. mais li la gën a yomb mooy nga. waaw nga dem eggal sa jàng. am sa master am nga dem nekk professeur d' enseignement secondaire. loolu moo gën a yomb. mais qui est en de jouer avec votre carrière c'est les inspecteurs ou bien le ministère. c' est c' est mun naa ne c' est toute l' échelle ab jàllee dalee ko si directeur bi ba si inspecteur bi ba si inspecteur d' académie bi parce que inspecteur d' bi euh, parfois heure bi ma wax nii je je reçois beaucoup d' informations. ñu naan dañoo rejeté ay dossier de demande de charge de cours lu ni ngay dégg xam nga ku nekk. xam nga inspecteurs yi aussi dama dama leen comprendre xëy na comme amuñu ressources humaines bu day duñ bëgg bàyyi seen éléments yi yuy dem mais man dama ne loolu. nekkul prétexte ne état bi daal di définir ibbi concours concours wax ma nag ay passerelle ñuy jël ay 3 4 concours boo xam ne day def un recrutement massif wala beneen bi sax li ko gën a yomb mooy comme. les ingénieurs diplômés dañoo bare mais munu mënuñoo recruter moi ñu recenser tous les ingénieurs diplômés te heure bi ma la wax a un besoin criard dans le moyen secondaire est-ce que est-ce que ëppul sax dans dans l'élémentaire ñu recruter ñoo ñu ñu dem dans le moyen secondaire tous les ingénieurs diplômés bu ñu pare le privé am nañ seen diplôme bëgg dugg ci public bi am seen cap comme cap ñun certificat d'aptitude bi ñu am waa privé moom nañu am bëgg dugg ci bëgg dugg dans la fonction publique mais ñu permettre leen namit it waa privé bi dugg si élémentaire bi remplacer ñi nga xam dañoo am euh, licence wala master pour dem dans le moyen secondaire loolu moo gën a yomb pour être si état bi ba pare ça coûte moins cher mais doo dégg kenn ku si wax. Mm-hmm. doo dégg kenn ku si wax. mais est-ce que aussi les inspecteurs amuñu raison parce que bu ñu xoolee élémentaire dangay gis benn enseignant bu yor deux classes ba trois classes est-ce que tamit loolu bu leen leen bàyyee ngeen jéggi dem chargé de cours. est-ce que loolu du du leen indil problème ñoom. waaw les inspecteurs. déficit bi moo indi li yëpp c'est-à-dire que euh, de personnel à l'élémentaire moo indi blocage yi la inspecteurs yi def pour nga bañ a dem mais wax dëgg yàlla nit ki aussi carrière am parce que ñoom inspecteurs yi ñu si ñu si bëree quatre-vingt pour cent si charge de cours nañu jaar wala ENI yi ENI mooy normal yi instituteur am ah, bu njëkk ba amoon na da nga am sa bac ak sa CAP nga def concours n yi instituteur. xam nga nga dem Pastef jàng fa pour 4 ans mas maîtrise ak 2 ans de formation boo paree nga nekk professeur lycée soo paree nga déposé inspectorat sur titre ñu ñu bëri foofu la ñuy jaar mais heure bi ñoom ñu ko dégg parce que dañu nekk si logique xëy na dafa am déficit su ma bàyyi sama élément ñëpp dañuy dem mais loolu état moo war a xool estimer daal di ibbi bunt yi est-ce que bi nga xam ne soxlawul ay diplômé mm-hmm. maanaam. li mu am ci ay diplômé doyul bi war na mën a di bloqué ay diplômé waru waru waru mën a nekk ñun suñ diplômé yi hmm. dafa des de ratio bi par rapport à la à la population dafa des. ok ñu am diplôme bëriwul. yéen ay chargé de cours ngeen bëgg a doon maanaam jóge ci instituteur euh, ñu jël leen comme ay chargé de cours te gis nañ ni fii nga toog le coordonnateur des chargés toogoon di wax seen jafe-jafe. donc yéen da ngeen bëgg ñëw ajouté wu ci jafe-jafe yooyu wala da ngeen bëgg lan ngeen bëgg exactement mooy li ma wax l'absence de carrière pour les instituteurs mooy mooy posé waat foofu c'est-à-dire que ñoom dañoo am ay charge de cours ñuy recruter avant ñu léegi xëy na am na problème de formation problème d'insertion mais loolu warul posé wu l'éducation ak la formation dans un état kay loolu warul posé xëy na loolu dañuy xalaat mais xëy na ñu bu ñu recruter dañuy ñëw rajouté wu ak ñu li fi nekk te ñoom xëy na nekk na problème si ñoom mais loolu pour man loolu moom wax dëgg yàlla autorités yi moom war nañoo xoolaat loolu. seen lim bi ak limu ñooñu daanaka benn la de parce que yéen yéen da ngi ci ay mille deux cent et quelques ñoom tamit daanaka jege nañ mille de est-ce que tamit yéen bu ñu leen jëlee dina dina régler problème bi. waaw xam nga chargé de cours yi ñoom problème formation lañuy lañuy nekk ñoom dañoo dañoo bëgg ñu ko leen former ñu def ñu pare am seen diplôme ñu réintégrer leen dans leur corps. moo xam professeur d'enseignement moyen wala professeur d'enseignement secondaire mais ñun dañoo bëgg aussi cest à système bi war am une vision une conception étriquée du du système éducatif da ngaa war dafa war a un cycle comme le cycle de l'eau maanaam nu muy demee c'est-à-dire que toujours nit day jóge point A dem point B jóge point B dem point C système bi noonu la mus a demee mais waroo bloqué parce que yow ngeen ne ñii mënuñu mënuñu leen a former wala war a dañoo am problème formation nangam nangam. ba ba tax na ñi suuf da nga leen di foofu mais yaa ngi sacrifié gis nga les anciens souffrent ñi ngi souffrir souffrance bu méttee métti. souffrir de quoi. bu métti sax waaw parce que euh, am na bon da nekk da ngay dëkk Thiès. Mhm. nga déposé charge de cours am na ko xam dafa ma woo mun na ma déposé naa 12 ans charge de cours te mënuma ko am d'ailleurs je précise que charge de cours du du obligation du droit du droit de. Mhm. autorité lay neex rek mu accordé la ko foofu laay waxee ne ñun amuñu amuñu carrière comme autorité lay neex mu accordé la ko moom bu ko neexul du la jël mais ñun du wutal ñu concours bu boo xasee ba jàll ne la doo dem di nga dem parce que concours la jàll mais bu dee charge moom da koy neex mu jël la neexul neexu ko du la gis ku nekk Thiès déposé 12 ans charge de cours mënul dem mu ne xaar ma dem dans la zone de maatam xëy na zone boobu dinañ ma soxla mu dem foofu. mu taseeg mu am benn circulaire nag circulaire bi moo indi déclic bi moo indi problème bi yëpp circulaire bi Cheikh Omar Anne jëloon wax ni léegi IA yi balaa ñu jëlee charge de cours day def expression de besoin remonté ko au ministère kooku xool daal di valider mu delloo ko IA mais procédure boobu IA yi du leen ko jëral. charge de cours yi lan mooy seen rôle. charge de cours charge de mm. euh, daanaka comme professeur la. professeur la boo xam ne. kenn formé gu ko. waaw professeur boo xam ne day xaar ñu formé ko xam nga bu nekkee enseignement élémentaire. Mhm. am déjà am nga formation ba pare. Mhm. léegi nag mais formation boobu xëy na du doy. dañ mën na la def professeur exemple nga am sa licence français wala master français. Mhm. ñu def la charge de cours professeur français. en attendant ñu lay yóbbu FASTEF di la former. pour nga am diplôme bi lay permettre nga intégrer le corps de cours. pour une toute Euh, saa yu leen jógee maanaam enseignant bu am lu comité mu créer collectif en plus est-ce que li ngeen di créer collectif jarul woon ngeen dem si ñi nga xamante ni ñoo leen jaboote maanaam syndicat yi ji leen jiite ngeen waxtaan ak ñoom ngeen defal leen le point sur votre situation au moins ñu mën ko porter euh, ak ci autorité yi. syndicat yi amul ku ma si wowut Hamidou Diédhiou SELS Abdoulaye Gaye Iden CUSEMS euh, authentique CUSEMS ñëpp woo naa leen. mais ñoom bëgguñoo wax ci affaire bi dafa mel ne circulaire bi daal dañ ko jël ak euh, en accord avec les syndicats man loolu la noonu laa ko jàngatee moo tax ba la wooyee waxee circulaire bi xam nga du lox lu leer am na sax ñu naan la bon est-ce que il faut dégarnir l'élémentaire au profit di moyen secondaire mais noonu boo ko boo ko posé noonu question bi mais pour man da nga koy c'est biaisé bi boo la ko posé da nga koy posé en terme de la carrière de l'enseignant xam nga syndicat yi ñun dañuy dañ bon dañoo dañoo syndiqué wu ñu dagg cekof waaw léegi ñoom bu intérêt xale bi taxawee intérêt enseignant bi taxaw les syndicats dañoo rangé wu si intérêt enseignant bi war a du mën a xale bu amul intérêt de mais état moo war a xool protéger intérêt élèves yi le rôle du syndicat c'est de défendre ses travailleurs mais doo taxaw naan non yéen bu leen demee xale yi du ñu am du leen am ku leen jàngal mais loolu ça doit sortir de la bouche din autorité étatique mais syndicat dafa war a protéger euh, ces éléments ñi nga xam ne ñoom la kii. ok euh, Mamadou Coulibaly euh, mu nekkoon mbégte di la dalal bon li duus li nga bëgg wax yëpp xejul fii xam naa dañ koy renvoyer ba prochainement di nga wax ne rek aussi problème mu instituteurs yi nga soulevé fii ça a été vraiment important di la jaajëfal bu baax. ci nga répondre suñu invitation. jërëjëf balaa may kii may remercier eh, waa Walfadjri Walfadjri li Messager waxoon moo leen dal ñoom ñoo ko traduire en action Messager daa waxoon ma bouche sera la sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche Walfadjri audience bi ñu am si population bi yéen mun leen ko mesurer sax képp ko xam ne lu la metti si Walfadjri ngay ñëw mu ubbil la bunt yi nga wax ko fi di remercier ñëpp Mhm. di remercier tamit di samay collègues. membre yi bokk ci GIDIS. di remercier tamit sama ancien promotionnaire waa Mamadou Diaw. Mhm. sama professeur Moussa Mbaye Moussa Taye. sama professeur d'université yi fàttewuma kenn daal boo libéré da ngay juum. merci merci également merci à vous Mamadou Coulibaly merci Moussa Sène ñu dem ci l'invité de PEF tout de suite.